Sénégal Plus. boy booy booy bu cool la woon booy bu yaru woon mais booy bu xawoon timide xaw amoon fitu ay doxaan ay gel nii donc ce qui fait que sama sama sama booy dañ ma doon dañ ma doon forcer loolu dañ ma doon forcer dañ ma doon dañ doon euh, defante ay challenge dem si buntu école yi nii xaar ba xale yi di romb nii nii ñu ni boy dama la wax ak xale yi dama la wax ak xale yi musuma am dara nag

sama benn copain ak gardien bu bëri woon fii moom yéen da ngeen bëri fii léegi dah, dafa jékki-jékki rek dem benda gel boo xam ne daf maa gis nii après mu mu bëgg ma quoi mu dem wax ko sama copain rek que que mu presse ñu quoi léegi gars yi presse ñu gars yi xam nga sa gars yi yooyu la ñuy def dañ gel bi xamul xamul fit rek ma taxaw gel bi nekk waa je suis d' accord pour sortir avec toi non, non, ma lu ñuy sortir avec toi frère je suis d'accord pour sortir avec toi et dit ok bah on a ay call ak mu numéro fixe gain ngay di jot bi bi so yeah souvenir boobu moo marqué parce que insouciance quoi insouciance on s'en foutait da calculer mais on a calculer. Euh, Elzo ไม่ป็้นี้ครับเลยครับ bagno de gonne